الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أمة الإسلام في هذا الموقف العصيب يجب أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي ما واجبنا تجاه ما يحدث في فلسطين من مأساة أولا أن نشاطرهم همومهم ونحزن لما يصيبهم من من دافع العقيدة والإيمان تنفيذا لأمر الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وتطبيقا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ثانيا أن نقدم كل ما نستطيع من العون والمساعدة والمناصرة لهؤلاء المجاهدين ماديا ومعنويا ثالثا أن نشارك في حملة واسعة للتعريف بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف والمسجد الأقصى رابعا أن نطالب الحكومة بصفتها رئيسة اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه بأن تضاعف جهودها من أجل إنهاء هذه الحملات والغارات الظالمة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من سبعين عاما قتلا وتشريدا وتهديما للبيوت خامسا أن نذكر هؤلاء المخدوعين الذين تنظم لهم رحلات إلى فلسطين ويستضافون في بيت السفير الإسرائيلي في السنغال للإفطار وغيره بأن كل من يفعل ذلك فقد خان الله ورسوله الكريم والمؤمنين سادسا أن نحارب اليأس الذي تبثه وسائل الإعلام المعادية للإسلام ونبشر الناس بأن نصر الله قريب وأخيرا علينا أن نتوب إلى الله ونشارك في الدعاء والتضرع لإخواننا المجاهدين في فلسطين mbokk ginnaaw ba ñu santee borom bi tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeetu lislaam day mi ngi ci ab guerre boo xam ne mi ngi ko séq ak yahud ya yahud yooyee nga xam ne ñoo mas di séq ak lislaam ab guerre depuis ca madina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bamu bako yàlla yónnee mu ñëw madina gaday fa fekkon na fa ay yahud fofé banu qaynuqaa nya nga fa won wa banu qurayza nya nga fa won wa banu nadir nya nga fa won ñom ñépp ay yahud lañ won ño xamne dañu taxawon ne dañuy fasiyene galankor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàllankoor di rabbi pexe di ànd ak yéefar ya daan jóge ci bitti di xeex si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nekk ci biir madina it lépp luñ man ci ay pexe ñu di ko def ba àggoon nañ sax am na ci ñoom ñoo xam ne masoon nañu bëgg a rey yonent bi sallallahu alayhi wa ci mbetteel bàyyi ko ba mu toog ci miir ñu doxe ko gannaaw fop ab mool dóor ko ko biñ demee bay xalaat loola ba nar koo def borom bi tabaaraku taala xamal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daal di gaaw jug joge fofa ndax loola lañ naroon kon ñooñu ñu yàgg fexeel l'islam lañ seen fexe mooma nag du massa jeex parce que guerre la boo xam ne diggante dëgg ak caaxaan la fépp fu l'islam taxaw ci kaw suuf ñoom ñooñee ak ñiy ànd ak ñoom ñooy taxaw ne du fi amee loolu nag jëruñu ci nax kenn noonu dong lay mën a demee ak ñooñu duñu ànd bokkuñu duñu mas a juboo it foo déggee jubo juboo nañ rek jàppal ne islam moom dafa amatul islam nag bu fa amatul moom ku mbubbool islam rek nekk fa ak juboo gu gu rëy sax mën na fa am loolu nag borom bi teel ñu wax ne walam tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabia millatuhum neena ñoom duñu leen gërëm de mbatte ngeen topp seenu seen diine waaye boo delloo ci sa diine doxal sa diine rek nga gis problème am sa diggante ñoom duñ la mën a bëgg duñ la mën a tagg duñ mën a ànd ak yow kon ñun jullit ñi nañu xool suñu bopp buñ demee ba ñooñu di ñu tagg bëgg ka wan ne ñoom ñun lañu àndal booba ñun ñoo àndu ak suñu diine xatta tattabia millatahum millatahum gi moom boo toppee rek nga gis ñu ànd ak ñu waaye boo toppee millatullah li yàlla digle nga topp ko topp lislaam nga gis ne seen diggante mënatut a neex ñoom ak ñi ànd ak ñoom ñoom ñëpp ci fan yi yéene nga gis yahud nga xam dañoo fekk fee di Palestine al masjidul aqsa nekk fa muy jàkka jooju nga xam ne mooy ñetteelu jàkka ci jàkka yiñ gën a màggal ci lislaam nekk fa ñu ñëw bëgg nangu suuf soosu yépp waaye bëgg a nangu jàkka ji jàkka ja dem nañ ba nangu ca lu baree bare baree bari ab xaaj lañ ca desal tey foofee ñu naan Quds xaaj nañ ko benn xaaj ba ñoom ñoo ko yor beneen xaaj bi ci des ñu moom la ñuy négocier nu ñuy def ba jël ko waaye lañ ñuy doon tudde Palestine nga xam ne am réewum lam la woon ñoom ñu ñëw amuñ fi dara moomuñ fi dara ay nit déparé ca Angleterre ñenn ñi déparé Amérique ñenn ñi déparé Europe fu nekk rek nit déparé fa ñëw yor seeni saak xanaa ko yorop saagam de moom amu fi dara ak gan la fi waaye waa Angleterre ca jamono jooja ñoo leen dooleel te booba ñoo colonisé woon foofu ñu doole leen ba jox leen fa suuf moom la ñuy tuddee waadu Belfort bañ leen fa joxee suuf suuf soosa ñu dëkk ca ne dañ cay taxawal seenum réew muy espace waaye boo xam ne nag yaatuwul woon lool lool daal daldi wax ne bépp yahut ci kaw suuf na ñëw gàddaay si ñuy gàddaay di gàddaay ba bari ñu daldi di nag jël. lañu bindoon ne moom lañuy doxal ña taxawaloon loola dañoo bindoon ne ñoom kat seen suuf daa war di yaatu ba wutal nañ ko ay àpp yu yaatu yoo xam ne war na faa àgg ñu tàmbali nag di doxal loola ci kàttan bañ jéemee loola ca commencement ba réewi arab yu bari jógoon nañ sot leen xeex ak ñoom seeni mbokk yi ñu àndal ci pas-pas muy américain yeeg français yeeg anglais yi ànd ak ñoom it ci sotle leen mu doonoon geer bu rëy rëy bu fi amoon ñoo ñii comme que ñooy réew yu mag yi biñ leen sotlee demoon nañ ba gañe arab yooyu nga xam ne ñoo jugoon di xeex ak ñoom ba ca woola ca lañ nangoo woon lenn ci lu bokk ci lenn ci réew yi arab yi yemuñ ca seen mbokk yooyu nga xam ne tay ñoo yore kattan gi gëna a ci walu ngannaay bomb yi nga xam ne ñoo gën a ko yor fexe nañoo fexé ba ñoom ñu am bomb bi nga xam ne ku ko am bu la nexé nga tukkal aduna bi léegi ba paré nak taxaw nañ yeen mbooleem jullit ñi bu fi kenn am ndax kat ki dafa wara ar bopam ci da nek ci bu kon war na am mom ñu laqal ko ko ndank bam am ko ñeneen ñi ci des ñépp na ñu ne leen ku ko ci am moom danañ la effacé ku ko ci jéem sax ba gëm loo nañ leen ñoom ñépp ne ñoom sax loolu daa araam ci ñoom ñu am ko ba li ñuy ndamoo mooy man de amuma ko doxuma jéem ci am ko te fekk kat lii am ko mooy tax nga man fee nekk ndax dëgg-dëgg nag Israël mii ngay gis tey jii benn réew arab xalaatu te xeex ak moom ci jamono jii mën a ñu nekk ndax jamonoy xeex lañ nekk joo xam ne ngànnaay yi kee yor bis bu ko utiliser sa kaw yow da ngay effacé wu ah yoroo ngànnaay yuro paaka yoroo dara mënoo xeex ak ku yor pistolet mënta nekk boo ko defee da ngay xaru kon la yàlla diggaloon jullit ñi dañ ko wàcc wa aiddu lahum mastataatum min quwa lañ war a ngànnaayoo ñu dem jéem a fexe ba seeni gouvernement yor ko ba kat koo xam ne nag nar na leen a tooñ ñu mën a jóg jàmmaarlook moom ca nam ware waaye yemuñ ci mbokk yi nañ xam ne heure bu ñu demee ànd ak suñuy noon foofu suñu sécurité jox suñuy noon ne noon yooyee yoral leen ñu ko fop suñu économie teg ko ci loxo yi noon yooyu ne noon yooyu yéen koy doxal ubbi suñuy réew jox noon yooyu ne noon yooyu yéen a yéen doxal fii fop suñuy jàng suñuy xam-xam yépp sukkandikoo ko ci noon yooya torox dong lañu mujjee munu ci dara ku say noon jiite danañ la sëlami suuf munu ci dara loolu réegalu àdduna la munu ci dara sab noon li nga man mooy waajal sa bopp ba nga xam ne day toog di la xool nga me nga metti ko waaye du man ci yow dara waaye bis bu demee ba man laa fob yaag say loxo yépp jéng boobaa bu lay mbejit nag bul wax wuy fu jëm sab noon moom bu la bu la jéngee téye la léeg-léeg da mos mbéj mënoo ci dara kon loolu moo ñu dal tey mbooleem gouvernement yi nga xam ne tey ñoo nekk ci kaw suuf ñu ci bari ci ñoom kat dañoo def la yàlla bañoon jullit ñi def ko yaa ayyuha alladina amanu laa tattaxidu aduwi wa aduwakum awliya tulquuna ilayhim bil mawadda bu leen jàpp sama noon di siinu noon ngir def ay péete péete yooyu nag bañ demee def ko noonu yàlla bi fob yéefar yee def leen ay péete sukkandikoo ci ñoom nga xam ne jàpp nañ ne ñoom mënuñoo dund sans ñooñu mënuñoo dem sans ñooñu yéefar yooyu tey nag ñoo leen ngalaab di leen def lool lii di leen toroxal toroxal gu metti gii moo tax Israël mii ba loola jàllee ba guerre boobee jàllee ñii dimbali ko daldi di ko jox mu yor bomb bii ñuy wax pën bu la nawawiya léegi ci la daal di mën a am na kattanu mën a def lu ko neex baayam bële toog fële di ko jàppale ca lu ko neex muy Amérique heure bu defee dara ñu dem fële ca euh, mbootaayu xeet ga bëgg faa woote lu koy daan mu daal def witoom yàq ko ne kenn du ko fi daan nanguwul sax ku ko fa wax lu ko fa naqari yëmu ca mu daal koy gën a jàppale ci muy gën di yaatal suufam suuf soosa bis waxtu wu jot nga dégg ñu ne Israël ma ngay gën a yaatal fu muy yaatale mu ngi mel ne dëkk bii la nangu woon jékki-jékki nanguwaat dëkk bee nanguwaat dëkk bee noonu lay def ba nangu région bi noonu lay def ba bëgg a nangu réew mi yépp te kenn du wax ñoom moom mii di baayam Amérique ak Israël ak mbooleem nag yéefar ya ñoom benn kàddu lañ ñoom dañ ne Israël lii muy def dëgg la dafay défendre boppam dafay xeex ak terroriste yi ñan mooy terroriste yi mooy ñi fi nekk fii ci Palestine ah di bañ ku leen not di bañ ku nangu seen suuf di bañ ku leen rey boo leen bëggee rey ñu jóg xeex ak yow ñu ne ñooñu ay terroriste lañ yoo xam ne àdduna bi yépp dañ leen a war kon am condamné bépp réew dañu leen a war a euh, xisaar mooy gaw leen ba kenn du leen jox ñuy lekk kenn du leen jox ñuy naan kenn du bàyyi dara di ñëw ci ñoom ba ñu jeex fi ndax Israël war a man a écouper suuf si ñoom ñépp tey noonu la ñuy wax tey seeni télé seeni rajo seeni journaux noonu la ñuy wax xanaa lu dul rek ay nit ñu maanu ñu nekk ca ñoom parce que foo fekk ay tooñkat dana nekk seen biir ay nit ñoo xam ne waxkat yi dëgg lañ waaye seeni gouvernement noonu la ñuy doxe la Israël di def nag ngir mën a jàllale tooñam googu ñoom dañ koy jàppe nit kuy défendre boppam dañ naan kat ñee ñoo ko sànni ay roquette kon sañ naa sànni bomb sañ naa rey nit ñi sañ naa sañ nangu suuf si sax ba loolu amee ana ñan ñoo waroon a défendre jullit ñooñee ñuy tooñ di leen néewal doole mooy réew yi nga xam ne tey ay jullit dafa nekk dëgg la day xeet yi ñoom muy nit ñi. bépp jullit tey ci kaw suuf sa xool ma ngay bax yaa ngay am lu la metti ci nga gis say mbooloo bi jullit ñu di leen rey di leen def lu metti te mënoo ca dara xanaa du toog di leen ñaanal waaye ana gouvernement yi tey ñu ne état islamique yi nekk ci maanaam ñi nga xam ne état yi nga xam ne ay jullit ñoo ko yor tey ci lislaam boo ko doon xool ñaata lañ ñaata lañ ñoo fi ëpp pétrole bi lépp ci seen loxo la nekk wala boog la ci ëpp tey ñoom buñ man woon ne dañuy téye suñu pétrole léegi di nga gis ab avion buy naawati moom daanaka dut fi am daanaka li ëpp ci xeetu yi ñuy utiliser ci kaw suuf ci njariñ ci seen loxo la nekk waaye ànd ak loolu lan lañ def bu lii amee daal dangay daal di gis ñu ne dañuy dajaloo toog fee waxtaan def lañuy wax daal di génn daal na ñoo ngi ñaawlu li am ayu ma salaam dem seen yoon foofu lañ ci am lan moo waral lool lan moo waral lool moo di ne dañoo ñu bari ci ñoom dañoo fob noonu yàlla bële def ko muy seen kilifa kilifa goo xam ne ñeme woo def dara mbaa nga ànd ci dara mbaa nga wax dara lu bu la ci digalee wala mu may la ci ndigal loolaa tax sax dem na ba ay réew yoo xam ne ñoom ñoo waroon a njëkk a jóg di dimbali ñii frontière yañ amal ñii dañ koy faral di tëj ngir di xiifal ñii ba nga xam ne kenn du fa mën a dugal gaas doo mën a dugal dara ngir lan ngir ñu gën a ñàkk ngànnaay moom kenn xalaatul ñeme leen koo jaay wala nga di leen ko may loolu lépp ngir ragal noon bu mag bii nga xam ne ñoom moom lañ def seen kilifa. mbokk yi nag gii toroxtaange du mas a jeex day continuer mbata ñu delluwaat suñu diine wu fobaat suñu bopp joxaat yàlla ànd ak yàlla wuuteeg képp ko wuuteek yàlla waaye nag loola lu ci bari day dellu ci suñuy gouvernement yu mel noona ñun mënuñ ci lu bari lañ ca man mooy lan gën a jëm ci ñaan ñaanal suñ mbokk yee nga xam ne tey ñu ngi leen di tooñ di rey léeg-léeg nga gis kër goo xam ne buñ fa bombardé ña nekk ci kër ga ñéppay dee wala kenn cay mujj bombardé boo xam ne yow dangay fekk fa nit ña nekk rek nga bombarde ne lan ñii xeex ak man laay seet nu la neex rek nga koy defe ndax ne yow yaa yore kàttan yaa yore kàttan mbokk yi lii ñuy seetaan tey muy dem ndànk-ndànk bis bu demoon kat bañ na tey jii ñii di nangu fii ña nga bëgg a jugaat di nanguwaat beneen dëkk bay bu ngeen xam ne nii dong lay demewaat nii dong lay demewaat yi mel nii nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu koo teeloon a wax ne dana ami nee na xaw tuuti rek xeet yi danañ wootante maam ñëw ku ne rek di am ci yéen comme ñi nga xam ne ñi ñuy lekk ñuy tiim ab bool di ci lekk ni ñuy tiime bool bi ku ne di ci tibb ñu ne ko keroog boobaa ndax ñun dañoo doon ñu tuuti mu ne déedéet booba yéen ñu bari ngéen waaye da ngeen a mel ne yol yolum taw bi nii bu tawee ba muy am eh, am yol yol moomu ànd ak puurit moomu noonu muy nooyee nee na noonu ngeen di mel mooy da di doon nit ñu amul benn benn dignité xeet yi dañuy ñëw di leen napp di leen tooñ te du ngeen ci man dara feneen fa mu wax ne alwahan moo leen di dal ñu ne ko mooy lan moo ne mooy bëgg àdduna ak bañ xeex xam ne àdduna bi ñuy bëgg bëgg suñuy ngóor bëgg sàmm suñu ngóor ku ci ne nu may def ba sama ngóor des fi lépp loo xam ne boo ko laalee jàpp nga ne mën na laa yóbbi ci guerre boo laa tey loolu moo ñu yóbbi suñu lii ñuy dund tey xeetu lislaam tey bokk na ci xeet yi nga xam ni xeet yi gën a yàpp ci xeet ci lañ bokk moo ne am na jamono day ñoom noonu yii fi nekk tey di rëy lu ci kaw suuf xeetu lislaam moo fi ñëwoon booba ñaar ñaar lañu woon perse yi ak romain yi tey romain yi tey ñoo ñii di européens yeeg américains yépp ci romain yi la ak perse yi perce yi ñoom seen kii daanaka jeex na parce que ñoo doonoon waa euh, Faris ak ñooñu léegi seen puissance daanaka amatul waaye Romain yi ñooy ñoo ñoom seen i sët nekk nii tey yore àdduna bi ba tey ñaari per ñaari puissance yooyu la fi islam fekkoon jamono jooju ñoom ñaar ñoo doon xeex islam ñëw di ñetteel bi ñoom ñaar ñëpp ñu daal di bennoo pour xeex ko islam duma leen ñoom ñaar ñëpp jëlee leen fi dem bañ koy jox jizya seeni état islam ñëw nangu ko te yor ko di fa àttal islam fee ci Espagne. réewum lislaam la woon lu bari ci France réewum lislaam la woon Amérique gii ngeen gis am na nay jamono am na nay jamono dañ daan jox gis ya al dawla usmaniya bi kon islam masoon naa dominer masoon naa am doole waaye jamono ba muy am doole nag ña ko jiite woon duñ xeetu nit ñi jiite tey nit koo xam ne dangay ñëw di rey doomam di rey baayam lu la neex def mu toog naan waaye moom kay lu la neex defal ñooñu du woon ñii waaye nag fii ñi nga am ñu mel nii lu mel nii la ñuy dund bu ñu amaatee ña mel noona diriger àdduna bi kon ak jullit fu mu mën a nekk ci kaw suuf war na yëg li xew yëg ne lii de ak tooñ la xolam di ci metti mu ci ñaan yàlla moom nag ñaan rek la man tey àdduna bi ni bindoo yu bari dana am mais mënoo ko faj mënoo ko faj parce que yorub gouvernement kon loo ci man muy ñaan sujjóotal di ñaan ndax yàlla man leen a sowe la ci gën a bon nag ñu dem ba gis ay réewi jullit ñoo xam ne ñoom ñooy bokk ci xeex ba bokk na ci ni ñuy bokk ci xeex bi ñaari mbir ba ca njëkk mooy réewi lislaam yoo xam ne dañuy dem ba ne léegi ñoom ñoom ak Israël dañuy signé accord yoo xam ne ñoom Israël dafay mën a yóbbu ambassadeur am ñoom ñu yóbbu fu fa seen ambassadeur ñu am ay relation comme ni ko ñii suñu réew def ak yeneen réew yu bari tey ci réew yi lislaam yi yow sax noonu nga day aco léegi dañuy xaritoo siq jàmm siq ay accord diplomatie muy dem ngay ñëw lépp ngeen siq ko kon ak noonu amatu fa kon jamono bi muy jël sa sa mbokkum jullit di ko rey di rey ay jigéen di rey ay gone di nangu say jàkka di toj seeni tabax nga ne ko kaa ñu xaritoo ana njullite loolu tey bokk na ci ñi li ñu gën a lor ci état islamique tey ñaareel ba ay jullit ñoo xam ne dañuy dem naan dañuy dem fële ci ambassade ba naan dañuy ñun dañuy wane ne ñun nit yi jàmm lañ wala lislaam jàmm lay woote kon na kaay leen ñu jàmmoo ñu di leen defal foofa ay ndogu wala di leen di jox xarit tabaski wala di leen jox yoo xam ne daal ay kàddu wala sax ñenn ña dem naan ay imaam lañ waaye dañu bu booy imaam waaye li wóor mooy loolu naafiq dong la ñooy dem ànd ak ñoom ñu naan leen dañ leen di yóbbu ca bu buñ demee di leen woo ca télé yaag yooyee ñuy wax naan islam moom gis nga ko nii la jàmmoo jàmmoo mooy lan da ngay ñëw sama kër rey samay doom rey sama kii ba pare ñu ànd di jàmboo di fotow loolu mooy ñàkk fayda ak jullit bu am fulla du nangu loolu ci ab noonam mukk sab noon sab noon lay doon ba ilaa bo ci mané dara nga fajj ko bo ci mënul dara yi nga xamné da la not waye dem ba jappé sab non sab xarit koku ñak fay da koy def waye julit ñi légui ñu ci bari ci ñom islam ci bopum dañ ci dul dañ ko dul jàng xamatuñu lan moy l'islam ba lolu moy waral ñu mëna dem ba fop seeni non def li ay xarit lolu nak mo ñu tay torox dig gi ñu nek wa illa julit deug deug deug deug deug bu bari won ci kaw suuf taxawé nañu wara taxawé <laughs> noon bi muy mujj abal ñu waaye du ñun ñoo koy abal wala ñuy daw di di di làqutu ci ginnaawam walla mu ñuy toraxal di ñu def li ko neex ba pare ah, kenn du wax loolu mënta nekk kon nag li mën a faj lii mooy nañ delluwaat ci lislaam ci jàng ko parce que jàng gi mooy tax ñu mën koo dundaat xam ko xam kan mooy yàlla xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam suñu diini lislaam dund ko nag ci suñu biir ci pas-pas bi ci jaamu yàlla ya te moytu dem di jànge ci suñuy noon ndax bis buñ jàngee ci suñuy noon danañ mujj yor xalaati suñu noon te duñ ko yëg danañ mujj bëgg suñu noon bañ suñu bopp suñu noon danañu taqaleeg suñu moroom ba pare boole ñoo moo boppam danañu toroxal guddi di ñu toroxal bëccëg suñu noon bëggul ci ñun bëggul ci ñun lu dul suñu toroxtaan bu amee la mi wut ci ñun du ñu am pétrole buñ ko amé danañu nax ba nangu wa amé lañuy la wut ci ñun suñu suuf ñooñu fa yilif diñu fa tégal siinu jang diñu fa tégal siini loi di fa tégal ba paré boo fa bëggé jël ñu jëlee la fa ci carton kon koku sa toroxtaange do nga la bëgg kañ nga yilif sa bop te sa nona la yilif mun ta nek loolu nag l'islam do nga ñu ko mëna délo l'islam nit ki buñ ci l'islam bu wër keneen du leen mëna yilif ku dul yalla yalla do nga ñuy mëna yilif yalla yalla dimbali ñooñee nga xam ne ñu ngi leen di tooñ yàlla na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla dëgëral kuy julli ñaan bu ñuy julli nañuy xunóot nañ yëg ne suñuy mbokk lañ suñuy mbokk lañ lee ñu leen di def wallahi moom ñu defoon ko suñuy yaay ak suñuy yam benn la ab jullit fu ko tooñee ci kaw suuf mboromum jullit fu mu mën a nekk xol ba noonu lay mel kon nag nañ leen di ñaanal suñu kem kàttan loola lañ ci man waaye nag suñu gouvernement yii nañ leen wan suñu mer bañ xam ne ñun ñii dëkkooruñ ci lii ñu nekk nemm geeg tekkaaral geeg yooyu dëkkooruñ ci nañ leen wan ne da ngeen a war a jóg wax ci lii bu laajee ñii ngeen dagg ay relation seen relation ak ñoom ngeen def lépp lu ngeen man ci wàll wàllu taxaw ci jox ñële seen àq ngeen def waaye tekkaaral gi ëpp na subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa aqimi salaa